di sant yàlla ci dëkk bu tedd bu màgg bu sori bii nga xamante ni tey fi la ñu ñëw ngir yëkkati sunu kàddu sant leen yéen serviteur yi bàyyee ko fépp ci Sénégal sant leen ci déplacement bi nga xamante ni def ngeen ko di sant sunu borom moom mi nga xamante ni tey jii dafay tombeek at ak fukki at ak fukki fan ak juróom bi nga xamante ni yëkkati nañ sunu kàddu ne dañoo bëgg dem teewal leen assemblée nationale ngeen wuyuñu wuyu boo xamante ni kawe na sunu njort ndax ba ñu ko waxee daal di génn ci biir réew mi fu nekk ñu dem fa ay guddi ay bëccëg bàyyi xel waa Tambacounda waa Saint-Louis waa Ziguinchor waa Sédhiou waa Matam waa Goudiri waa Kanel waa Bakel ak ñi nga xamante ni mooy les sénégalais de la diaspora fu nekk ñu dem fa ngir taataan seen kaddu ñu daal ñu koy dénk daal di ñuy yabal fële nga xamante ni moom mooy pentu ndaw réew mu nekkoon liggéey bu am solo di leen sant ci dëkk bi nga xamante ni fi la ñu yëkkatee sunu kàddu te démarré fi woon fi sunu campagne muy caajaay di sant waa caajaay bu baax kilifa yi teew fii di sant sunu jur bi nga xamante ni jël na fii kàddu muy Yérim Faye di sant tamit ba di ko gërëm di ko sant di ko wax nañu kilifa gi fital nañu kilifa gi digëral nañu sant nañ la cant ko xam am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di sant serviteurs yi déplacé wu yëpp di sant borom barab bayal bi nga xamante ni moo ñu dalal muy soxna Anta Sougou di sunu yaay di sant soxna euh, Mati Dem bi nga xamante ni fi la ñu ñëw di sant ñi nga xamante ni ñooy sunu kilifa yi sant Sall ñi sant Diouf ñi sant Ba ñi nga xamante ni ñoo ñu ëmb barab bi di sant bu baax suma waa kër muy waa kër góor gi Jibril Fall di leen gërëm di leen sant ci seen taxawaay ak ci seen détermination ak ni ngeen jugunge su ma tuddee ñooñu mooy tudd naa ñëpp ñi nga xamante ni sonn nañ ci ci liggéey bi muy samay mbokk bopp ak ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal caajaay yëpp di sant le coordonnateur communal muy Balla Gaye di sant ñi nga xamante ni ñooy ñooy Mamadou Dieng ak ñëpp ñi nga xam bëggoon naa jaar ci seen tur kenn ku ci nekk sant la gërëm la bés bi nag ni ma ko waxee léegi ci tubaab dafa méngoo ba nga xamante ni na liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy def ànd ci ak sunu jëwriñ ak sunu kilifa yi nga xamante ni ñoom dañ koy defal ci biir réew mi yëpp dañ leen a bëggoon a yëgal depuis caajaay yëgal ko sénégalais yi nekk ci biir réew mi ak yi nekk ci biir réew ne ci élection yi nga xamante ni moom mooy am ci ñaar fukki fan ak juróom ci ci 2024 élection yooyu élection dañu ciy bokk ndax li tax ñu ciy bokk mooy waa Sénégal ñoo ko bëgg waa Sénégal ñoo ko soxla waa Sénégal ñoo ñu ko laaj waa Sénégal ñoom benn fukki at ak ñaar jëm ci juróom benn fukki at ñett waa Sénégal nee nañ sonn nañ tey jii meeting bi pour ñu def ko dañoo luye ci groupe pour def ndax courant bàyyi fuyu kamaj tey jii mbooloo tey am na ci ñoo xamante amuñu suuf suñu bayee mbooloo mii fi nekk tey seen doom yaa ngi nii toog am ay diplôme mënuñoo liggéey wala sax amuñu diplôme. ci biir ku ci feebar doo mën a faju bloc opératoire bu Thiadiaye bii yàggul dara ñu ciy gërëm suñu wayjur As Ndiaye ñoo ci taxaw xar ci suñu tànk Dubaï. xuloo ko bind lettre ouverte au ministre de la santé pour ñu mën a fexe fii kenn dootu fi am doom di fi dee loolu loolu 62 ans après les indépendances waroon nañu ko weesu caajaay gii ñuy waxee ak yéen tey nga xam méngoo na lool li xew ci réew mi yëpp caajaay gii bu 5 heures ci ngoon jotee soo moytuwul dootoo am ndox boo tijjee robinet du ñëw ndox ndox mi ngay naan ndox mi ngay naan doyul wala bouton yi baaxul moo tax ñi fexe sax nee nañ yee ba ndox mi ñëw ku ciy ñëw jaajaay da ngay indaale sa ndox mooy naan bu ñu ñëwee ci ñun juróom benn fukki at bi ñu amee indépendance ak léegi saa buñ ñuy seet si dañuy indaale ndox ya ñuy naan ndox ndox yi ñuy fekk ci suñu dëkk yi duñ ko bëgg naan